xibaar bi wàcc na léegi journaliste bu mag bi di Pape Alé Niang mujj na am liberté provisoire ni ki euh, talaata tey ji mook 10 janvier 2023 gannaaw arrestation bu njëkk bi nga xam ci defoon nañ ko ñu fàttane ne Pape amoon na liberté provisoire waaye nag dañ ko mujjee woon a jëliwaat yóbbu ko ca euh, kaso ba donte sax nag jëli boobu noonu ba ñu koy libéré rek ba ñu koy jëli matul sax une semaine Pape Alé waatoon ci loxo loxoy euh, takk der yi bu nu sukkandikoo nag ci avocat ñoom nag def nañ ci liggéey bu am libéré euh, Pape Alé nag liberté bi dafa ànd ak contrôle judiciaire maanaam du mën a génn euh, biir dëkk bi waa CAP nag di kuréel gi nga xamante ni moo ëmb mboolee mi euh, ñi yëngatu ci wàllu fii ci Sénégal ñoom nag rafetlu nañu libération bi remercier avocat am confrère yi nga xamante ni tamit bàyyi woon benn yoon mbir yi mu daal di sedd taxawoon nañu ci xeex bi ci début ba fi ñu toll nii Pape Alé Niang nag am liberté provisoire ànd ak tamit ay conditions yoo xamante ni moo tegu ci liberté am gi te moo di contrôle judiciaire bi ak yeneen yoo xamante ne ni moom wax nañ nañ ko nga xam ne jàpp woon lu dul rek bëgg Pape Alé Niang mi di génn ñoom waa CAP sax dem nañ bay xam ne seen prochain combat du leen lu dul rek euh, contrôle judiciaire bi nga xam ne mu ngi ci mbaggu Pape Alé Niang toll ci juróom benn fukki fan ñu fexe le tout ba ñu daat koy euh, dindi ba mu set wecc ndaxte daf koy teree def liggéeyam moom Pape Alé coordination des associations association de presse du Sénégal di CAP remercier aussi euh, askanu Sénégal gi yépp ci bàyyi xel gi ñu doon bàyyi xel Pape Alé ca fa mu tëddoon moom Pape Alé Niang nag ñoo ngi xaar euh, ban réaction la def par rapport ak dossier ak dossier yi nga xam ne moo nekk ci table procureur bëri lool takku ci jamono bi nga xamante ni dossier bi ci gën sensible moo di bu euh, président Ousmane Sonko ndax dana ci yeeti yàb bi ak yeneen dossiers yi nga xamante ni taxoon nañu dañ ci dellu si